saabu bu taal di am man maay nekk cible bi man munuma nangu Ousmane Diagne jiital ay ndaw ñu déparé place de France romb gouvernance romb Croix-Rouge romb manufacture ñëw ba sama buntu kër di fi taal au vu au seuil de tout le monde man est-ce que damaa war a toog di croiser le bras ñuy taal sama kër wala di attaquer suma kër yaay parce que toog ne restaurant bi muy fréquenté ñëpp xam nañ ko gannaaw mairie restaurant bala toog ne moom tribunal lay liggéey dana ma détruire parce que ay collègues ñoo fa nekk ma gisee mu posté Facebook di yak suma der di mané dama jël pistolet di ko tiré si ay ndaw c'est qui reflète du pur mensonge kenn gisuma ma tirer mais nak amna droit défendre suma alal ak lima mom sama cœur la ñu ñëw diko tal ñëpp diko ko gis gis nañu safara yi gis nañu lepp ñëpp gis nañ ko vidéo ya ngi fi kenn gisuma ma tirer mais amna sañ-sañ lima ma yoon may parce que je suis chef de parti politique fi Thiès li metti métti askanu Thiès gis nañ ko man maay dimbale askan bi maay faj buubu gàcce yi ñoom ñoom dañoo nekk mairie ñoom dañoo yore mairie di détourner les fonds dimbalewu ñu askan bi li may defal askan bi moo leen metti moo tax tey ñu jóge taxaw pour gàkkal sama der gàkkal ñu ma àndal mais loolu du jàll parce que nee na man bi ma gisee démb mu def ay menaces am si Facebook laa xëy suba j'ai porté au auprès du procureur de la République sous le numéro 1150 Mom si ay waxam wax na tribunal lañ ko informé bi mu bureau procureur le gis sama plainte fofu. kon kan moko informé ne def plainte man 1150 moy sama numéro plainte moy ni. Mon plainte 1171 la Té nee tribunal lañ ko woy ne ko Massaly def na plainte moo tax mu dugal plainte pour yak suma der Dima ma traître de tentative de meurtre quelqu'un que j'ai aidé quelqu'un que j'ai couvé quelqu'un que j'ai tout fait pour lui la preuve ma propre fille ka bi mu gisee Ousmane Diagne di wax di toubal bayam Ma fi a pleurer ne papa xanaa di ki moo ñëwoon toog ak ñun yandok ñun ci taatu mango bi nga jël xaliss jox ko kooku moo di ah man mérité naa koo je l'ai aidé je l'ai couvé j'ai tout fait pour cette euh, ce gars là y a même des gens qui m'ont dit que bi muy bind sa tay ko parce que limi muy ko ñep xam nañ ko parce qu'il n'est jamais lucide man si dëkk bi la dëkk man fi la man sa PSV même moi. man buñ ma defee test musuma naan sàngara musuma koo jëfandikoo ñu koy jëfandikoo fii si dëkk bi xam na leen man man mënta yàq suma dar mënuma gàkkal tey laa gën a taxaw askanu Thiès tey laa leen gën a dimbale tey laa gën a am li ma yor jox leen ko taxaw nañu nag taxaw nañu wax nañu ne man maa leen lëjal Thiès parce que maay défendre le président de la république maay défendre la république keroog bi ñu dooree alkaati yi ñëpp gis nañ ko كيف يكون عمون مكو عم دوتوني سيارم دفا داو دور نجي اي الكاتي جيل خير دور كسان بوب او في او سي دو تول موند موم سما مير كومين تياس اس بوك تمان سما كومين لا نيو نيو با سما بوندو كير ديكو تال نيب ديكو غيس مان بو يتال سما كير مورا كوراج ري برا نياتا يون لا نمي سيبل ديمو كو ديف باسكو مان ما لين سونال تياس ما في دوخال دغ ما جاغي اسكان ما لين ديمبالي كوم يون دا فام nena nak nag tribunal parce que greffier la fa la nek ay collègues am ñoo fa nekk la preuve bi ma déposé plainte dañ ko ko informer ne déposer naa plainte motax mu déposer plainte mais man mun ta yàq suma der man mako gëna lucide mako gëna gën set loxo maa ko gën a dëkk ci dëkk bi mako gëna gën askan bi te man man duma traître quand je quand je n'étais quand j'étais contre le président Macky Sall j'ai toujours assumé ma position politique tay je suis avec lui je continue à défendre la République à défendre les institutions de la République à défendre le président Macky Sall ute naag moom nga suñu buntu kër yi suñu bureau yi suñu kër na président Macky Sall Nako gëmul fi mu nek bi mu la version de ngeen dem ñu bokk Abdou Mbow wax nañ ko référence la day man duma ma Bezodrome, duma nan sangara, duma fréquenter ku ma gënul fii si dëkk bi gënuloo ma la ma yor jox naa ko askan bi te tey laa gën a dimbale askan bi ñoom xam nañu ne xam nañu ne daanu nañu ba pare man munuñu yàq suma der man kenn munu ma gàkkal munu ma jege askan bi di leen dimbale di leen taxaw di faj seeni soxla tey ñu xëy bugg a tilimal sama der man suma xeex maa koy xeex te li ma koy ñaan mooy moom xam na ma il a toujours eu une haine viscérale sur ma personne yàgg na maa def Cuba d'une manière indirecte tey la ko fasal wane ko mais dina xam ne man la ko digaaleel la ma koy ñaan rek mooy suba nee nañ dañuy mars moom na fexe ba bu mu daw parce que il a toujours été au pol un poltron bi ñu jàng lycée dafa musa def ay jeu suba li ma koy ñaan rek mooy grève bi na fexe suba na ko jiite seen marche bi li ma koy ñaan Ousmane Diagne moom si boppam neko jiite moom si boppam mu ñëw sama kër euh, su xool na ko jiite rek man loolu laa ñaan moom xam na man xam na ma moom si boppam na loolu laa koy ñaan na jiite suba bi mu ñëw bañ a làkkoon ci ay xale may wax père de famille ak mère de famille nañu téye seeni doom ñoom bu ñuy waxtaan si kaw duñ ko fekkee suñuy discuter duñ ko fekkee suñuy raket kilifa yi duñ ko fekkee bu xew jotee ñuy génne doomu jàmbur yi pour ñu leen di rey si mbedd bi man du ma rey kenn de mais am naa droit man sama kër ma défendre suma kër défendre sama bien taxaw sama alal taxaw aar suma yaay aar suma mag

convient aujourd'hui pour apporter des clarifications devant l'opinion nationale et internationale par rapport aux événements du vendredi dernier, avec des violences inouïes, perpétrées par une certaine soi-disant opposition en perte de vitesse, manipulée par des forces occultes pour tenir le visage de notre chère ville de Thiès. Je ne saurais laisser passer cela sans pour autant dénoncer ces auteurs et fauteurs de troupes, je veux bien citer nommément Ousmane Diagne, maire d'une petite commune qui a manipulé les jeunes en les mettant comme des chairs à canon pour arriver à leur fin. Ce dernier, dans leur folie, de brûler la ville, essaie de manipuler cette jeunesse pour venir attaquer le siège de mon parti et ma maison familiale. Il m'accuse de tenir un pistolet en main pour tuer les jeunes manifestants, ce qui révèle du pur mensonge et de la calomnie. D'ailleurs, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République pour diffamation et dénonciation calomnieuse sous le numéro 1150. Je dis bien, comment un homme aussi ingrat et malhonnête, connu et reconnu de certains bureaux détenant du pouvoir pour manger ses permis de s'attaquer à son excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Je lance un appel solennel aux responsables de Benobok Yakar, de la mouvance présidentielle et des citoyens et les citoyens de se lever pour faire face aux ennemis de la République qui ne cessent qu'à déstabiliser le Sénégal. Il est inacceptable que des énergumènes financés par des forces occultes s'attaquent à un homme de dimension exceptionnelle, son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui a transformé le Sénégal dans tous les secteurs et conduit le pays vers l'émergence. Refusons que ces oiseaux de mauvais augure viennent détruire toutes ces avancées, autoroutes, ports de l'émergence, le terre, le BRT, la relance du chemin de fer, les hôpitaux, des dernières générations, les universités, etc., etc. Car ce sont des acquis pour les futures générations. La situation du pays est confrontée à une crise insonnelle que le chef de l'ATCA, Macky Sall, n'a pas créée alors que c'est l'opposition qui demande le report des élections présidentielles et non lui personnellement. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Macky Sall a du mérite car il ne veut rendre un pays instable, mais plutôt un pays stable et prospère à son futur successeur pour le bonheur des populations sénégalaises. J'en appelle à toute la classe politique, la société civile, les citoyens de tous bords, répondre positivement à l'appel du dialogue national en fait de sauver le Sénégal des fossoyeurs qui ne servent qu'à l'amener vers le chaos. J'attire l'attention des pères, mère de famille, a veillé sur leurs enfants, en fait que ces pyromanes ne viennent les sacrifier pour un pouvoir qu'ils exerceront, qu'ils n'exerceront jamais. Je ne saurais terminer sans féliciter nos voyants forces de défense et de sécurité qui ont été à la hauteur pour défendre la République. Le parti Union pour une nouvelle République réitère son engagement, sa fidélité et sa détermination sans faille derrière le président de la République, Macky Sall. Je vous remercie.